yow Adji Sarr yow laay waxal tey Sénégal bu tàkkee na la leer ni yow yaa ko taal tey bépp bakkan bu fi dee wala mu rot fi na la leer ni yow aji Sarr yow yaa ko rotal yow Adji tax nga tey ma rusa doon jigéen yow Adji lan moo la war a mën a jalal tey nga mën a avenir u ak avenir u Afrique président Ousmane Sonko bi nga xam ne tey dafa wane dëgg taxaw temb ne day jàkkaarloo ñii nga xam ne lépp lu ñu dal ñoom ñoo ñu ko teg yow Adji Sarr en tant que jigéen xale bu ndaw am sa avenir ci sa kanam lan moo la war a mën a jaral tey ngay hypothéquer avenir u Sénégal man jigéen laa wante yow tax nga tey ma rusa doon jigéen yow Adji bu fekkee ni am nga ay mbokk na la leer ni gàkkal nga nga sa askan yëpp yow aji bu fekkee ni am nga doom wala ëllëg yaakaar nga am doom xamal ni sa doom googu wutal nga ko way bu dul fay yow aji képp ku bokk ndeysaan rus na ndax sa jëfu tey na la leer ni nag di bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy lim histoire bu triste bu Sénégal dinañ la ci boole tu es rentré tristement dans l'histoire aji te na la leer ni xale bu ndaw hypothéquer sa avenir pour ñoo xam ne jaruñu ko ndax xaalis ndax lan ndax tey nga jaay sa ngor jigéenu Sénégal yëpp nga gàkkal leen yal nañu yàlla atte ak yow di leen wax rek ni président Ousmane Sonko du ku ñuy fawee président Ousmane Sonko du ku nga xam mel si noonu ñun patriotes yi dañoo taxaw temb te bu leen yëboo ngeen xam ne balaa ngeen a jaar ci kaw président Ousmane Sonko ngeen ñu leer ne ay jigéen ñoo koy xeex ñun ñoo koy xeex ñun waa jigéenu Pastef ba ngeen xam ni fii Sénégal rangoo ñu baadoo la dootu fi cimetière bu yow aji nag na la leer ni ëllëg dinañ la takk dugal sa bàmmeel te sa ay jëf kese moo la fay fekk yal nañu yàlla àtte ak yow président Ousmane Sonko na la leer ni ñun patriotes yi tey lañ la gën a feddali suñu kóllëre suñu wóolute te nga xam ni foo nekk dinañ la gunge combat boo nekk dinañ la ko gunge mu leer leen ni même si vous enfermez président Ousmane Sonko des milliers et des milliers de Ousmane Sonko sont nés ici au Sénégal et partout en Afrique et cette ce de renouveau cette révolution qui est née personne ne peut l'empêcher wassalam